Pour avoir des informations claires, fiables et rapides, ci les lu soxal diine ak yoonu murit. Tout ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. Les lu soxal xibaar yi biir réew mi Abonnez-vous à abonneel gaaw ci chaîne bii ASG Production. Ahmadou Sow waaye tere woon na bu baax itam ba ñëpp dégg ko di woor di def ay mbóosóor ay caaxaan di ko wax di ko jëf dox jëm ca di ko seetaani di ko déglu ci mooy lu amul njariñ rek bi ñu ko bëggee gën a jegeel ci suñu suñum réew mooy am na yu nit di nekk yoo xam ne bëggut kilifaam fekk ko su ca nekk ba ñu ne diw nga ñëw ñu sapp jataay waaye tere woon na bu baax itam ba ñëpp dégg ko di woor di def ay mbóosóor ay caaxaan di ko wax di ko jëf dox jëm ca di ko seetaan yi di ko déglu ci mooy lu amul njariñ rek bi ñu ko bëggee gën a jegeel ci suñu suñu réew mooy am na yu nit di nekk yoo xam ne bëggut kilifaam fekk ko fa su ca nekk ba ñu ne diw nga ñëw ñu sapp jataay Pour avoir des informations claires, fiables et rapides, ci lépp lu soxal diine ak Tout ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. lépp lu soxal xibaar yi biir réew Abonnez-vous à réew. chaîne Billy ASG Production. Ahmadou Sow